internet Dakar Buzz TV waat nañ leen bu baax a baax di am mbégte jàkkaarloo ak yéen nu ñu koy defee saa su ne euh, ku ne xam ne rek la nga xam ne moom moo xew foofulee ca Karang muy ab élève boo xam ne euh, jàpp na moromam dóor ko dóor yu metti yamu ca nag dafa jël vidéo boobule ñu daal di koy dugal ci réseaux sociaux yi ba mu tax mu daal di andi polémique bu metti euh, ci bi ku ci nekk rek ci yàbbi mu toftalu ci violence yi nga xam ne dañu koy faral di gis fii ci Sénégal nañu jëlee woon kenn mu daal di ne rek ab élève la ci lycée boobule noonu dañuy jëlaatee laajtee koo xam ne nag moom la yaay la ci Mouhamed ngir rek mu daal di andi ay leeral ci mbir bi naka la demee woon soxna si ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. aha naka nga tudd waaw ah. waaw maa ngi leen di fay Adja yeeg continué. ma ne lan nga ñu mën a expliquer ci li nga xam ne moom moo daal ci sa kaw doom waaw. ah sama doom daal li ma ci mën a expliquer mooy xëy na dem école ñibbisi. Mhm. ba mu ñëwee man dafa fekk ma génn man nag ba ma ñëwee dugg si biir kër gi ma gis moom tam muy génn si néeg bi di di kii daal ma xool ma gis kanam gi yëpp yi ak bopp bi yépp ànd neewi ma ne wa yow lii lan la xanaa yow danga danga feebar te gisuma la wala lan la wala lii nu mu demee nii mu ne ma déedéet dama doon xeex mu ne ma danga mhm. doon xeex mu ne ma waa ma ne ko yow moo xam ne amoo kenn problème yow yow nga xeex yow man ma mosuma dégg sa xeex man man maa ngi doog a gis sa xeex ma ne ko yow yow yaa kana doon xeex mu ne ma man ak suñ benn waa classe ma ne ko loo ko def mu ne ma jotewuñu dara waaw parce que dama nekk ci école bi mu ne ma yow ci biir classe lañ nekk ñoom ñaar mu ne ma mm-hmm. yaa ngi wax ma ne ko comme que mm-hmm. maa ngi wax de te ki ñuy jàngal mi ngi taxaw mu ne ko yow bàyyi ñu rek mm-hmm. comme suñu suñu suñu maître mi ngi ci biir classe bi mu ne lu tax mu ne ko comme metre baa ngi ci classe bi man naa ci génn te man may responsable classe bi mu ne ko yow boo dee responsable classe bi tam bu fi maître bi nekkee yow mun na too nekk mm-hmm. responsable xanaa maître di su génne mu ne lu tax mu wax ko loolu ci lañ génn nag mi ñëw di ñibbisi mm-hmm. mu koy attaqué histoire ba ñëwee moom mu ñëw ba si kër gi fekk man ma dem marché moom tam mu ne mi ngi ñëw jëlal si man sama bagage yi foofu ci la ko xale bi woo téléphone ne ko waa ci ci yooni école bi la ba tey rek mais mu ne ko ne nag jëla kii mu woo xale bi téléphone ne pour nañ daje. Mm-hmm. biñ demee daje nag si la xeex moom foofu te xeex bi tamit boo xoolee vidéo bi gisoo mm-hmm. foofu kii de commencement xeex bi gisuloo ko de moom ak moom ak ki ko doon vidéo xeex bi waa xeex bi rek ngeen jékki-jékki gis parce que dañ ko sot moo tax ki nga xam ne moo doon filmer dafa jàppale télé bañ daan waa ki doon vidéo daf ko jàppale bañ mm-hmm. daane ko ba pare mu doog a jël téléphone am di di di filmer moom ci boppam nag man dégg naa waa man dégg naa ñu ñu kuy wax ne moom moo d'accord ci kii bi si ne ko nañu xeex. pour ñu filmer leen daal mhm. waaw pour ñu filmer leen su pare ñu ñu ñu kii ko nañ nañ d'accord ku gañe sa morom ñu filmer ko dégg naa ko wax loolu de mais ki wax loolu day défendre rakkam ki ko wax. ah ñoom ñaar ñoo ñoom ki ko wax dafa bokk ak moom rakkam lay défendre parce que ki ko wax ki ki ko wax moom ci boppam. Mhm. jàngewul ci école ba. demul école naka la mën a jugé lu mu fekkeewul ma yaakaar ne dara boo comme euh, élève boo xam ne yaa ngi jàngee ci école bi ah noonu la présente ce que wax na leen turam ak santam loolu la présenté wu waa jotu wax nag parce que dafa ko waaye ne daal moom day jàngee ci école bi mhm. daf ko man naa rakkam lay défendre moo mhm. tax mu wax loolu yow histoire boo fekkeewul mënoo cee wax lenn waa Mhm. li mu wax ne sa doom dafa xaw a violent wala comportement yi mu yor sax ak yooyu euh, comme yow yaa ko mhm. jur te yow yaa dëkk ak moom mhm. est-ce que mën nga ñu wax un peu euh, sa doom euh, ban comportement la yore kañ la nekk ci école bi est-ce que mës nañ laa wootam ne la sa doom def na lii wala loo xam ne bett na la mosul am école bi muy jàngee maa ngi doog a gis xeexam foofu mosu faa def benn viol mosu faa def lu ñaaw mosuñ ko faa def dara mosul xeex mosul xuloo mhm. mi ngi doog a am mhm. te kii nga xam ne moo jote moom tam su ko tooñul woon duñu jote mhm. su ko tooñul woon duñu jote ba pare mu ñëw def ko jëf ji ñaaw ji pare nag envoyé ay ay ay vidéo envoyé ay vocal vocal yi nag waa amoon am na ay vocal muy wax fi mu jaar ak moom. vocal yu. ah mu naan ne ko waa dóor yi mu ko dóor mu naan ne ko bu ngeen xëyee na ngeen xëy mu ne bu ngeen ndogoo na ngeen jaar kër gàll bi ngeen ngeen kii ngeen xoolaale ko rek ba xam bu ngeen gisee ni ma ko def kanam baa ngi néewi bi ma ko bàyyee mënul ñibbi xamul sax fu muy jaar ba dem loolu yëpp moom moo koy wax ci vocal bi. Mhm. waaw di wax yëpp fi mu jaar ak moom naan man maa ko woo téléphone ni parce que man dégg naa ki ki wax affaire boobu tam mu ne fi mu daf ko topp topp topp ba mu mhm. sës mu mujj wëlbate ko xeex ak moom. waa dem dem na sax nee na ba koy traité ko ne góor jigéen nga kooku dafa sës. moo tax mu mu doo ko. moo moo moo tax mooy te gis nga fi ñu xeexee noonu ah suñu suñu suñu mhm. kër la gën a jege ne ñoom seen kër parce que école 1 la ñu xeexee. te ah, école buntu école. waa suñ kër la gën a jege ne kër xale bu góor bi. kon ki wax ne mm-hmm. kii wax ne da koo topp ba seen wetu kër muy xeex moom mu doog a wëlbatiku riposte école bi kon ñun la gën a jege ne mm-hmm. moom école bi ak marché bi ak suñu kër yëpp soreewuñ mm-hmm. gis nga ki wax noonu dafay wax lu ko neex rek ak waxi ak waxi jàppale rek mbokkam mbir mi xamu ci dara loo fekkewul mënoo koo jugé xeex bi man fekkewuma ko moom fekkewu ko ñoom ñaan ñi xeex ñoom ñoo mën a wax ne lii ak lii ak lii lañ jote lu dëgg kon nag ñoom ñaan ñi xeex li wax ñun tam loolu la ñuy gëm mm-hmm. te ki ki nga xam ne moo moo dóor ba gaañ tamit moom moomu tam mm. dafa envoyé ay vocal mu wax ni mu ko def yëpp wax fi mu jaar ak moom d'accord mm-hmm. Mm-hmm. alors euh, Mouhamed ci ban état la nekk ginnaaw gaañu gaañu yi baa sonalu ko waaw Mohamed moom fi mu toll nii sonaloon na ko moom wax dëgg si yàlla sonal na ko parce que kanam gi dafa néew woon ba bëri suulu waaw mais nag yóbbu nañ ko hôpital ñu defal ko pansement mhm. jox ko ay garab. d'accord fu mu ne jamono ji mi ngi feex. waaw mu mu ngi de mais nag taxul mu wér nag. Mhm. Mhm. delloogul école. déedéet delloogul école. est-ce que am na ay jéego yoo xam ne école bi jël na ko ci waa école bi moom jël na ko ci jël na ci ay jéego wax dëgg yàlla def na li ko war waaw mhm. mhm. ñiy wax naan euh, Mouhamed ak Dia bi dañoo nekk ay mbokk ak yooyu ndax loolu danga koy dëggal bokkuñu dara Mouhamed bi action bi kaa bi amee ba pare bi kaa bi amee ba ma ko mhm. laajee fuy kër Dia bi xamu ko xamul sax kër ga bokkuñu dara waaw moom kay daf ko prouvé ko rek indil ko histoire. Mhm. Mhm. médiation yu ñuy wax nag ne nee ñu dañoo bëgg ngeen retirer seen plainte ak yooyu yëf yi mu ngi ci wàllum yoon lan ngeen di réclamer ndax da ngeen di topp yëf yi ba mu sës wala da ngeen di baale. ah ñun daal fi mu toll nii côté boobu moom mënuñ cee wax mu ngi ci wàllu yoon yoon daal mooy def liggéeyam. Mhm. waaw. dañ lay sant di la gërëm mais laataa loolu comme yow parent d'élève nga euh, lan rek mhm. ngay conseiller élève yi nga xam ne ñi ngi ci école yeeg yooyu ñu mën a maytu yi ni mel li may conseil élève yi daal mooy ñu gën a góorgóorlu respecté seen njàng mi te bàyyi affaire euh, bàyyi affaire violence yi ñuy def parce que lii moom jëmalul réew mi kanam te man li ma li may wax rek mooy gis nga xale danga yar soo ko yarut mbedd da koy yar mhm. man nag sama doom bu demee ba nga xam ne def na loo xam ne jaaduwul bu fekkee ne lii man sama doom moom moo ko defoon keneen duma ko ma a ñaanal intervention damay bàyyi ñu yar ko yoon yar ko ba tegu ci yoon bu ëllëgee du ko def keneen mm. parce que genre xale yu mel nii waroo leen bàyyi di société bi ñuy def lu leen neex xale bu demee ba nga xam ne dafa bëgg a jël di faat bakkan boromam danga koy teg si yoon mm-hmm. man sama doom bu ko bu ko defoon ki jaabi mii tey bu fekkoon sama doom moo def lii jaabi tey jaabi Ibrahima Daraame la tudd bu fekkoon ne sama doom moo ko ko def tey ni konoon man dama naan ne ko yoon def ci sa liggéey parce que sama doom bii damay xam ne kon tëna ma yaral ma ko ba mu tegu ci yoon nga dog koo bàyyi waaw. Mhm. d'accord. Euh, soxna si mhm. ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci leeral yi nga xam ne andi nga ko ñu bàyyi la nga tàggatoo. Mhm. waaw kay. jërëjëf. mu euh, nekkoon rek yaay euh, ci Mouhamed ginnaaw coow lii comme ni ma ko waxeen woon rek andi na polémique yu bari euh, ñu ci bari nag ñi ngi naan na yoon def liggéeyam ñenn it doon ŋàññi sax li nga xam ne jot naa am ñu jël ci yaayam it mu daana ci andi ay leeral ubbi nañu nag suñuy buntu ñi nga xam ne ñoom ñooy famille Diaby bu dee it bëgg nañu andi ay leeral rek Dakar ba suñuy bunta benn yoon mun ngeen a ñëw andi ko fii bu ko defee rek ñu daal di koy waxtaane ñu sant leen bu baax gërëm leen yéen ñiy seetaan émission seen cas beneen yoon ak beneen Diabos TV.